الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حب حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di sant yàlla bu wér di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan koor gi lu génn yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar te nangu ñu sunu jaamu yàlla gépp jégg ñu retraite yi te nu at yu bëree bëri ci yalwaan na waaye man tey damaa bëgg a yalwaan ci siroxu jokumba rek loolu ma jox ma jox ko daam man daal bëgg naa loolu tey muy beneen yalwaan boo xam moom laa bëgg sëriñ Ibra est-ce que am naa ci lu ñëw rek laa koy dem kay du wàññi dara du ma ko bu ñëwee na ko teg ci taabal man loolu laa bëgg di nuyu Marème Lo sama ustaas gis naa ko fi léegi di ko ziar di ko ñaanal yàlla guddal fan ak wér di nuyu monsieur le bu baax bii may si yéen ku baax ku yow macha allah ànd ak adjoint Ibrahima Ndiaye ñëpp ñu leen di nuyu di di la jox sa wàccuwaay nga tegal ñu ko ci monsieur le loxo monsieur le gouverneur El Hadj Bouya Amar. ki ñu bëgg a jox kàddu gi nag mooy kan jàmbaar monsieur le maire de la commune de Nguinil Abdou Khader Djili Lo. sëñ Ibra Jaxate sànq muy wax man maa ko nekk ci ginnaaw aw ku ragal du maye aw fit mooy joxe. képp koo xam ne si la moo dàq joxe boo ko tooñee boo ko tooñee dana la duma loolu dëgg la waaye dafa am juróom benn yoo xam ni benn bu ne am na tur waaye ci nit la gën muy jub way tey mat wér aku fit jub ci yoon lan ko taam waaye ci nit la gën nit bu jubul loo ko jox mu jubal Abdou Khadre jii loo di ko jub tey ci ndox lan ko taam waaye ci nit la gën ku teye ngi nii waaye cim soow la mu ko taam waaye ci nit la gën ku waaye ngi nii mat cim xarum tabaski la mu ko taam waaye ci la gën ku mat a ngi nii wér ci góom la mu ko taam waaye ci la gën ku wér a ngi nii waaye ku dox du la nga daw doo taxaw ba taxawal dara kon fi dëgg nii kii mooy maire boo xam ni moo def bilan te jotagul may dimbali góor dimbali jigéen ñi dimbali jeunesse bi taal yaay lam yóbbu fa ay lampi solaire fu mu war a am ndox ba fa am ndox kooku mooy Abdou Khadre Djily Lo di jàmbaar sëriñ daam nag wax nañ ko léegi bu nee daara bi ko bi ma ko léegi waa ngi di la dékkee bi laaj ma dama ni leen daara ji mooy kokki waaye mooy maam Cheikh Mbaye loolu si bi la jaxate waxaat léegi ak njabootam ñëw na léegi Serigne Ndiaga mbay ñu ngi koy ziar di ko wax mu nuyu ñu seen seer mi nga xam ne moo toog toog maam Cheikh mbay yàlla na fi yàgg sëñ man saxir ko yebal kokki ne ko demal kokki jàngale ngir yàlla sëñ man saxir ñëw kokki kokki xumb lool tëgg ma ne fa ak fooma mu dem ndàll la ci ginnaaw kokki samp daara gàmmu jot mu ñëwaat di siyaare maam Cheikh maam Cheikh ni ko ndax yaa nga kokki mu ne ko kokki daa xumb moo tax ma dem ndàll mu ne ko kokki laa la yebal kon kokki jàngale ngir yàlla jër Baye Jiili ak Serigne Sambay ni ko gàmm gi doon ko fekkee dem leen mu ñëw kër Baye Demba Diop ñoo ko daggal fa mu dëkk tey ndax nag waa Ndiobé na moom kokki ndax maam ma tàndu besanti kokki kon loolu di lu am solo daara jooju nag bu taxawee ba daam mi génn fa macha allah ak ñeneen ak ñeneen sëriñ bi sant war wax na ko léegi jóge Mbuur ñoo koy nuyu wax na wax jom solo macha kon loolu lépp liggéeyu maam Cheikh la kon liggéeyu mag ñi la te mag ñi macha seen liggéey du rab du réew macha kon nag ñu jox nag monsieur le maire mu yëkkati kàddu bi. billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal ci coono yi waaye di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo fi nekk yëpp yi nga xam ni teew nañ fii ñu mën ci lim ki nga xam ni mooy oustaz Cheikh Wade di nuyu ki nga xam ni mooy sëñ Ibra Jaxate ak sëñ Sayer Mbay ak mbooleem ñi nga xam ni teew nañu fii ci jotaay bi di nuyu ki nga xam ni mooy le sous-préfet de Mbédiène ak son adjoint Ibra Ndiaye ak mbooloo mi nga xam ni moom lañu am waaye di nuyu ñi nga xam ni ñooy comité d'organisation bi nga xam ni ku gis lii tey xam ni def nañ ay effort yu bëree bëri pour que ñu mën a réussir pari bi kon ñoom it am nañu euh, cant guñ leen beral di leen sant di gërëm ci taxawaay boobu nga xam ni def nañ ko rawatina jigéen ñi nga xam ni ci wàllu xéewal yi ak lépp li nga xam ni mooy lu fi war jëm ñoo koy taxawee dem ba léegi ñoom it ñu leen di sant di gërëm di gërëm waa Kër Mbaarik Euh, muy dëkk bi ndax yaatuwaay bi nga xam ni defal nañ ko daara ji ci dëkk bi nga xam ni kenn ku nekk yaa ngi góor góorgóorlu di def sa kemta lay kattan pour que xale yi bañ a am benn jafe-jafe loolu ñu nekk seede ñu ndax dañu fi dëkk loolu nekk lu am solo ñu leen di sant ñoom it ci taxawaay boobu ndax boo gisee ñun ñuy wax loolu mooy lépp loo xam ni dañ ko def fii tey ci daara ji ñun la waroon kon taxawaay boobu bu gisee ñu koy taxaw ci dëkk bi ñi koy def dañ leen a war a sant gërëm leen ci loolu ndax ndax saa su ne ñuy gis xale yi ndax ku xam xale xam ni nekkam bari nay jafe-jafe waaye teewul ñu koy muñ kon loolu lu am solo la. Kër Mbaarik wax dëgg yàlla am nañ ci taxawaay ba tax na xale yi lu bare bare duñu tiif duñu mar ñu ngi góorgóorlu ci li nga xam ni mooy nekkin bi ak yor bi kon sant nañ leen bu baax a baax a baax di leen gërëm ci loolu ci euh, loolu di sant it également ñi nga xam ni dañuy jóge feneen ci yeneen dëkk wala ñu dëkk mu nekk dëkk yi nga xam ni moom wër Kër Mbaarik te ñuy def ay effort saa su ne di jël seen alal di ko dugal fii ci daara ji muy ci weeru koor wi wala muy ci wàll wi nga xam ni moom lañuy ñuy dox muy di dem di yalwaani ñu leen di jàppale bu baax pour que ñu mën a dund dund gu mucc ayib ndax daara ku ko wax xam ni da nga ci tudd loolu yalwaan ndax daara ak ak yalwaan ñoo ànd loolu rek la mais wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam na ni nit ñi ñu ngi ciy def seen kéem tolluwaay kattan kon loolu dañ leen koy santé di leen ko gërëm di wax na tuuti rek ci li nga xam ni mooy daara ji metti woon na lool bi muy door kenn ku nekk xam na ni sos bay yombul woon ndax Ibra wax na ko léegi euh, euh, xam nga kaay dem France kaay dem Italie passeport a ngi nii wala visa ngi nii nga rejeté ko ñëw ni damay téye daara yombul te daam mii loolu la defoon ñun booba ñun xaalis rek lañ doon gis ñun dañoo dem ñun kon kenn ku nekk ca la nga la nga ne da nga koy gëm gëm-gëm moo am solo ci àdduna moom it lii day bu tolloo fii mooy gëm gim ko gëmoon moo tax mu toll fii te man gëm naa ni dina weesu fii mu nekk daara ji ndax am na ci yitte am na ci fulla am na ci fayda te gëm na ko looy daam du ngeen waxte ko la waxe daara ji kon loolu mooy solos ci am mooy que moom li mu nekk li fexe na ba teg ko fi mu war a tegu mooy gëm ko téye ko di ci def kemt lay kattanam pour que mu am réussite te loolu ñu ngi ko fiy gis ñu ngi koy xam loolu di suñu mbégte ñun en tant que autorité locale bi nga xam ni moo nekk fii waaye it ñu xam ni li muy def yombul ndax ndax li may wax ni euh, euh, euh, nit bu dee xaalis da nga koo bëgg doo ñëw ci daara moom bu dee da ngay wut xaalis doo wax daara léegi nag léegi nag ku nekk ak sa choix moom choix boobu la jël te choix bi mu jëlit wax dëgg yàlla mi ngi ciy am ndam kon dañ koy sant bu baax daam encore une fois ci taxawaay boobu ñun nag ñun nag à notre niveau ci fi nga xam ni fa la ñu nekk en tant que maire de la commune de Nguidila li ñu bëgg rek mooy la commune ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay daara ñun de gisaguñ leen nag moom ndax liñ ci xam rek la ñuy dem fi mu ne nii mënuñoo xam euh, ñaata daara ñoo nekk ci commune Guédira la te nag ñun danañ def suñuy effort chaque année bu koor jotee dinañu xool daara yi ñu xam ñu dem. mais bëggoon nañu ngeen am benn base de boo xam ne dinañu xam ñaata daara ñoo nekk ci commune Nguidilane pour que ñu xam nañ leen leen di jàppale ndax loolu tam dina ci am solo loolu nag foog am koo xam ne ci yéen moo koy taxawee ah ñu woote ñu waxtaan ngeen ñëw commune ba ñu xool lan nañuy def pour mën leen a jàppale ci li nga xam ni mooy mooy daara ji ndax ñun euh, euh, euh, mënuñoo nekk di wax jàng jàng di jàppale école français jàppale école arabe te jàppale wuñu daara yi ñun bërki dem mooy njaay tabax nañ école classe boo xam ne ci école arabe la ma nga ca ndaam kon daara yi tamit bokk nañ ci ñi nga xam ni ñooy euh, euh, suñu ay administré yoo xam ni jàpp nañu dañ leen a boot war leen a dimbali war leen a jàppale ndax du rek du rek ki nga xam ni mooy école lañu war a dimbali waaye war nañoo dimbali école yi war nañoo dimbali daara yi mais nañu am organisation boo xam danañu xam ñaata ni ay daara yu am ay donga am ñu fa nekk ñu mën a xam loolu waaye xam nga boo nee da ngay dimbali rek kenn ku ne mën naa tëb ñëw ni man yor naa daara te boobaa day compliqué léegi nag bu amul organisation ba ñu mën a xam ñi ñu war a jox ñan la mën naa indi ay ay jafe-jafe moo tax ñu bëgg yéen ngeen taxawee loolu balaa yàgg ngeen ñëw ñu daje ñu waxtaan ñu xool nan na ñuy def ba xam ñaata fi nekk ci daara ñu jàppale leen ci lu ñu man man euh, euh, yaakaar naa ni kàddu yi du jar muy gudd ndax li may wax rek fii moom man fi laa bokk euh, Kër Mbaarik mënuma cee wax lu bari ndax lu ma fi war wax rek yaakaar naa ñi jiitu wax nañ ko bu dee ci wàllu xam-xam wax nañ ko bu dee ci weneen wàll it yaakaar naa ni wax nañ ko kon kon samay wax du fi bari li ñuy wax saabu du fóot boppam en tout cas daara jaa ngi nii te koo gis xam ni daara la te it daara la joo xam ne ci tund yi euh, euh, ràññee nañ ko lool loolu nag moo ci am solo li ma ci jot a wax ci commencement bi doy na ci sëkk mooy ku xam ba muy door daal ak tey xam nga ni am na changement bu bu mat sëkk bu ci am kon loolu nag mooy solo si di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla dajalewaat na ci ay ati at di gërëm mbooleem koo xam teew nga fi di ñaanal ñëpp ñu delluwaat ci jàmm ak salaam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf bismillahi rahmani rahim yaa ayyuha alladina aamanu in jaakum fasiqun binaba'in تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه